ah bu sa wujj di la sëlëm sa kanam du set waaye ñun dañu tolluwul président Macky Sall dafa tolluwul ay ministrem dañoo tolluwul ci ay wax ci ay jëf ngeen nekk Sénégal gi ñu nekk ñi fi jóge du ay leçon yu ñoo xamante ne dañ leen koy jox li fi xewoon démb kenn mënu ko fàtte 900 heures de coupure la fi woon nit ñi xuyi kamaj xuyi kamaj guddi bëccëg suba ngoon amuñu ci solution yàlla indi fi président Macky Sall muy jël nag ñamu wóolu teg leen pour ñu liggéeyal ko yow buñ la waxee bum la metti sa jaar-jaar ci Sénégal sa engagement sa détermination sa nangoo liggéey sa noppi di jëf te bañ a wax defe naa ne ñëpp mën nañ la ko seedeel te liñ la dénk président dafa am yaakaar ci yow président Macky Sall C'est un plan Sénégal émergent. Les 5-3-5, les 5 initiatives, les 5 accès, les 5 euh, accès universels. L'électricité de Tibok. En 2012, il y a un village. L'électricité, c'est ce que je veux dire. Si vous avez un village, vous avez un village. Vous avez un village. Vous avez un village. Vous avez un village. Vous avez un village. Vous avez un village. Vous c'est ce village. Vous avez un village. Vous avez un village. Vous avez un village. Vous avez un village. Vous avez un village. Vous kon defe naa ne ñu nekk fi di débat li ñuy wax ni amul bopp amul genn parce que président Macky Sall daf ne accès universel à l'électricité na bari waaye na na njëg bi na njëg bi wàññeeku coow li dama ne diggante solu ak simmeeku yar mu neen daf ciy xaj ñaata at ngeen toog soutenir ko ngeen nekk ay député nekk fi pendant deux ans cours électricité bi ngeen di def ci ay milliards di ko soutenir te musu leen a ñëw fii toog ne jëf état du Sénégal ngeen toog ba tey yokk bi nga xamante ne tey ñu mu 54 pour cent de la population touché wu leen 300000 familles bokkuñu ci yokk bi. bokkuñu ci yokk bi da ngeen di demander ay renseignements socialu président Macky Sall defe naa ne yàgg na koo def kon defe naa ne tey jii suñu jëmee ci pétrole jëm ci gaz. ak li nga xamne ne ngeen di def ci askan bi am nañu yaqin ke ne euh, euh, électricité dana bari waye coût bi dana wañeku bu baax a baax monsieur le ministre gis nañu effort yi ngeen di def yépp centrale solaire yi ngeen fi def bokal yeen ngi koy gis centrale solaire de malikunda yeen ngi koy gis Central solaire de medina Ndakar yéen ngi koy gis li ngeen di def defena ne ñepp tek nañ ci seedi beut dëkk bu gënoon a sori si Sénégal soxla courant yeneen fa yóbbu courant daanu dajul suuf te depuis ak 2035 defe naa ne accès universel day am monsieur le ministre le pétrole defe naa ne jarul débat pétrole depuis 1960 ñu ngi koy wër ci Sénégal ku nekk ñëw na fi def génne mais amul benn toq bu ñëw suñu amee chance ci nguuru Macky Sall ñu am pétrole dañ koy sant yàlla parce que la chance la c'est pas donné à tous les présidents de la République coow pétrole ben litre génnewu ñi ci wax yépp ay business donc la nek ay business man politicien ñoy nek ci pétrole bi guddi bëccëg suba ngone buñ tuddé pétrole sen neer yu jog pétrole bi buñu démé tay ba Sénégal bokku ci ite initiative de transparence des industries extractives loolu weesuwul transparence luñu bëgg suñu paré rapport yi dañ koy publier lu ci lëndëmul mu lër ci ñëpp kon wax ji est-ce que jax nako defe naa ne fii ñu toll nii nanu ñaanal président Macky Sall ñaanal ay ministre am parce que nag fu ñu jëlee Sénégal fa mu koy jëmee moo gën foofu ci sénégalais yi kon nag bu ngeen di politique na ngeen politique te bu ngeen mënta wax lu baax it na ngeen noppi mais li ngeen di wax ni amul bopp amul genn en tout cas monsieur le ministre ñépp ñu fi toog danañ voté parce que ñun ay député yoo xamante ne askan wi moo ñu fal askan bee ñu yaakaar te moom la ñuy liggéeyal dinañ voté sa budget parce que bëgg nañu dëkk yi nga xamante ne tey war nañoo joti ci électricité te egguñu fa budget bi fexe ba ñu eggal fi loolu mooy wax bi kon nag ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay gërëm donc am na doléance yu bëri yoo xamante ne waxoon nañ ko ci euh, kii bi di la féliciter monsieur le ministre ak sa équipe ci li nga xam ne moom nga gérer les impactés yi nga xamante ne ñoo nekk ci ligne haute tension bi traversé Dakar ba Kounoune ay mécaniciens nekk ci je vous remercie madame